شفور بكو في غداو لغنا يا مريم جاو خلنا يا يم بتلم يا كرام Lite syrlig för mig. neuf heures minutes di leen gërëm bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun xalaat seen journal des faits divers dellu siwaat na euh, di gërëm ñi ngeen àndaloon ci programme bi ci suba ak léegi sama gars yi dellu siwaat nañu salaamaaleykum Mouhamed. aleykum salaam. ziar ak màggal. alhamdulilah. ne suba si waaw tontu yi nag ci nuyoo bi rek loolu sant sax ñu xuus tuuti salaamaaleykum maaleykum salaam ziar ak màggal alhamdulilah. non nag maa fekkoon ma doon confirmer benn information nag maa bett. <laughs> Eh, nuyu naa la bu baax. Ah, maa ngi lay fay nuyu waa Sénégal. Eh, maa ngi lay nuyu passe partout bala ñuy sori. waaw dafa am benn affaire buy xew boo xam ne na ko gars yi bàyyi xel. da hmm. ngeen daje ak ay xale yu yor benn adresse. boo xam ne dañ naan la damaa réer fii laa dëkk. Hmm. buñ leen ko wanee bu leen leen yóbbu. dafa am lu ci ne. waaw wala bu ngeen leen mën leen a yóbbu. Mhm. yóbbu leen police. ndax adres bi ñu la wax. boo ànd ñoom ba foofa. musiba da nga ko réccu. soit dañ lay dépouiller. baa ñu fitnaal la baa ñu faat la. donc xale yee lay yóbbu foofu. ñoom ñooy dajeek yow salaamaaleykum damaa réer fii laa dëkk jox la adres bi. nga topp ci. te généralement bu fekkente ne dañu ñëw Médina dañu yor adresse boo xamante ne ji rue bi lay intercepté. Mhm. du du du interpellé du du du sori ak fi dëkk donc on nga naan xaaral ma yóbbu ko ba mhm. foofa. bu ñu ko adresse bi ñu leen di wan ci këyit bi. Mhm. bu fa jël ngeen police. danger ci loolu laa nekkoon. danger macha allah loolu am solo donc xibaar la bu ñëpp war jot. Euh, te moytu ko passe partout. ziar naa la bu wér maa ngi di nuyu Ndiaye di nuyu auditeurs yeeg internet xalaas yëpp. di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu ci réew mi ca bitim réew. bitim réew di ñaan ñëpp jàmm ñi ngi sant bu baax a baax. téléphone yu bari yi. alhamdulilah téléphone yëpp ay téléphone kii la. macha allah maa ngi xaar sama miwan dégg naa ne ku ñëw benn fan rek mën nga am miwan. ñun ñi fi yàgg rek jotagul miwan waaye non yow moom boo bëggee miwan dama la koy jox. xam nga yow yow yow sama waay nga. loolu yàlla dogal yow yow yow yoonu Bercy taxawu rek nga fàtte <laughs> yow da ngaa baax da ngaa mais téléphone Miwan yi waaw eh, ni ma la koy waxee Miwan dafa mm. am téléphone Android mm-hmm. am téléphone simple lu ñuy mm-hmm. woowee fitéphone mooy yi mm-hmm. jar ay huit mille neuf mille dix mille pour sama classe gi nga xamante ne ji mënewuñ ko noonu ñoo jënd ci téléphone yooyu téléphone la bu baax bu garanti bu mën a yàgg batterie bu mën a yàgg te dafa yomb macha allah am na aussi ay téléphone Android yoo xamante ne ji tànn sa bu la neex la trente huit mille quarante trois mille 28 000 27 000 le téléphone Android et avec yi mhm. tablettes ay tablette Mais il y a un téléphone wax téléphone qui beaucoup plus ko que tablette million. Euh, bo demee feulé ci Colobane da ngay laccé magasin boutique Khouma et frère. Mhm. Euh, bu fekkente né da nga dem Grand Yoff également Xuma et frère dañuy jay téléphone ak tablette Mion. keur Massar Khouma et frère Mbour wala Thiès. Mhm. ci boutique Khouma et frère Touba comme Rue Ngalande Diouf amna ñu téléphone million yi Cheikh Mbaye Diba Touba amna ñu téléphone million yi. Mhm. Khadim Gueye Tamba amna téléphone téléphone million yi Bas Thioub Ziguinchor wala Cheikh Dieng Ourossogui wala Thierno Fall Kaolack Safulay Bari Kolda fu ngeen ci dem rek bu ngeen laccé téléphone wala tablette million il y a ko am mm. ay téléphone la qui tablette 12 mois benen partenaire ci xalaas do tak ay lunettes mais wa Sénégal yiitewoo ay lunettes xam nañu ne. jàmbaar ci lunettes fi ci Sénégal ñi fi tek tank di len defal li ñu bëgg ñoy wa Optique Vision Plus Sénégal. Mhm. sank maa ngi déggante ak ñom ñu ñuy wax né promo Ramadan bi ñu nekkoon. Mhm. ay réduction 50% ci prix lunettes yi ci boutique Optique Vision Plus Sénégal. Mhm. dañ koy wéyal dañ ñewon bu koor gi jéxé lañ ko arrêté. mais comme day voilà koor gi. jot gi bariwul woon. moo boutique Optique Vision Plus Sénégal muy showroom bi nek ci VDN bi boutique bi nek keur Mbaye Fall bi nek Mbour bi nek Touba fu ngeen ci dem euh, promotion bu am solo mi ngi lunettes médicales yi lunettes euh, ni ngeen accessoires lunettes xol dana chaque jour 9h ba 17h du lundi au vendredi wala samedi 9h ba 14h numéro téléphone Optique Vision Plus Sénégal 33 821 54 57 33. 821 54 57. promo te réew mi ñëppay sol lunette de. waaw bari na ci waaw des fois nga gis ci rafet lool sax. promo bi day continuer. waaw day wéy. pañe yi nag. pañe. pañe yi àndoo promo na fi mu ne. ah ay pañe. wala na ngay gunge koor gi pañe ah pañe après ramadan. Ah, <laughs> moom di gungewul dara. <laughs> kën ci mii njaay mii. pañe après ramadan quoi bi mu ci joxe nee bi muy ñëw fekk ko këram. te fa mu jëm ragalu ko <laughs> du ko gunge fii lay yam ak moom. passe partout Kalz. naka réew mi. sant bu baax. kaa yaa ngi ci réew mi ba tey. waaw xaaju guddi la ma woo di ma wax ay affaire déferment kuñ defeere <laughs> mandat dépôt plutôt. ah ok Modou Yade Modou Yade mooy euh, ancien mooy mooy ex jëkkëru Lissa Tine. waaw ñu hmm. fi doon waxtaanee. jamono yi yëpp depuis 2019. benn xale bu jigéen boo xam ne. dafa amoon benn waay bu ko takkoon. Hmm. après ñu divorcé. Hmm. xale bu jigéen bi Lissa la tudd. waa ji Modou Yade. biñ divorcé ci ni wax parce que bari na nak ay version mais ci ñuy wax dal xalé bu jigen bi da doon continuer de fréquenter waa ben benn jour xalé bu jigen bi dem kër waa ji mhm. ca lañ ko noppé gis mhm. gëstu yeeg renseignement yi wané né li sa dugg na kër Modou yad mais gisatuñu fu mu génnee 2019 ba légui gisuñu ko légui nak Modou yad mom ginaaw bi looy dégg nañ ko ci andu tax xelam ak dafa dafa dangam sang loolu lépp mais dal info biñu mujjé jot te pass jox ma mooy teg nañu ko loxo ba mandat dépo ko. démb waaw démb direct. waaw ñu xool enquête bi fu muy mujjee. Mm-hmm. très li li li waral li waral mandat dépôt bi direct bi sax. Mm-hmm. mooy xam nga première fois bi ñu ko dañ koo tàppeeloon PV gendarmerie ba defeere woon ko ñu libéré ko le même jour. Mm-hmm. moo tax démb bi ko gendarmerie arrêté dañ ko yóbbu direct. continuité la ñu def rek waaw. loolu la ñu woowee mandat parce que la de en tout cas fee lañ ko diligee xam nga xam nga depuis boobu ba léegi ñu ngi doon am ay sources yu bëri ci ci bi mais am na ci yoo xam ne mhm. mhm. jàpp nañ ko jàpp nañ ko defeere nañ ko fële rëbës ak xam ne moom moo yore seen seen seen kàddu mhm. mooy ki fi doon wax fan yële moom aussi mu confirmé ñu loolu man tamit ci enquête bi ñi nga xam ne prochaine ci enquête bi tamit kon am na ñu ma ci jokkool ñu wax ma ci lu gën a leer la boo wax ma ci leneen loo xamante ni dañuy bàyyi ba enquête bi gën a kii gën a bu tuddee sama xel day dem ci ña fa nekk ndeysaan yàlla na mm-hmm. leen borom bi taxaw amiin amiin allahumma amiin ay nañu tabax yeneen kaso mën a désengorger rëbës wallaay wallaay wallaay Mohamed waxal waxal de paas ah. hmm. euh, Kals hmm. da ngay dem rëbës hmm. sa waay sa xarit sa mbokk dem seeti ko wëlbati ko wan ko ginnaaw mu leer la ne moom su guddi jotee day xat-xatloo ci mat la wallaahi yow boo demee tëdd sa lal bu yaatu nelaw ba mm-hmm. ba ba yandoon mm-hmm. loolu boo ko dee xalaat mm-hmm. ngay xalaat kasoy senegal yi ak ni ñu xate lu ñuy mën di def tabaxi kaso bokk na ci dafa bokk cim réew sax mooy comme ay armée rek xam nga àdduna du yàgg ba néew jóg di marché naan yokk leen armée kon kay ñiy dund ñoo leen mën a taxaw mm-hmm. àdduna du yàgg ba ñi ci kaso bi di amal sitting biir ay marché biir kaso naan nañ leen ñu kii kon ñi ci biti ñoo leen mën a taxaw kon moom dem ci kaso yi yóbbu fa dara baax na mais tabax tamit baax na parce que gis nañ ni euh, boo xoolee ci koor gi bëri na ay nit yu doon jël ay initiative di dem ci prison yi mm-hmm. ñu ngi koy def maintenant gën na bëri loolu baax na mais daf mel tabax euh, na am na solo mais moo farata gis ñaar ci ci ñaara ngi yoo xamante ne ji dafa baax ci ci mm-hmm. justice tabaxi kaso kaso mhm. atte ñi nekk ci prison yi surtout surtout ñu xam fu ñu féete mhm. kan xam nga lan moo gën a metti ci jamono mhm. mooy nga toog fenn xamu kañ nga fay jóge attel nit ki bu dee vingt ans lay tëdd ne ko vingt ans mu xam ko dëgg la bu fekkee danga koy bàyyi mu bàyyi nañu tabax ay kaso également espace yi am na ci réew mi nañ ko wutal budget tabax ko désengorger am na bu ñu def sébbi xotaan mais warul yam foofu rek kaso yu màggat yi nañu leen defar jombul kenn de. dëgg la walaay jombul kenn. jombul kenn li ngay wax nii rek xalaas la. voilà jombul kenn te wax li muy wax nii. waxal nga leen. te naa la beneen bi topp mooy. xam nga hmm. lan moo tax. Hmm. bu ñu yóggee ci kaso bi ñu fay toog lu yàgg duñu leen àtte. Hmm. parce que juge ñoo doyul. waaw xoolal ma paradoxe boobu noonu. parce que ak dossier yu réer. asamaan yaa am na ñoo xam ne kaso bi seen dossier daa réer. juge doyul benn juge war a. ci bi benn juge war a lijjanti lu mat quatre cent dossiers. c'est énorme c'est énorme kañ lay am dafa dafa compliqué ça peut prendre des années bon té buñ ma wax né ma nit ñi nit ñangi jangi droit nit ñangi jangi di formé wu mhm. université bi rek fa ah, du ñuy ñuy xel ñuy xel ci yi gaaw dem rek acci fuñ jëm dañuy déglu dañuy dañuy déglu Mor Diouf ñëwaat ñu dem yow yaa yore communication li jëm ci mbirum lycétine waaw dafa am lu ci waaw li nga xamante ni daal moom moo bees ci mbiru suñu suñu rakk suñu jërbaat euh, suñu sœur lisaatin mooy que ne tey xamal nañu ne daal euh, ki nga xamante ni moom mooy suspect bi euh, yoon teg na ci moom loxo moom Modou yàdd waaw loolu daal bi nga xamante ni am na wax dëgg yàlla rafetlu nañu ko bu baax a baax a baax donte ne nag euh, yéene wuñu ko benn doomu aadama waaye li tax euh, vraiment mu nekk pas boo xamante nii ñu koy ñu koy rafetlu bawol yëpp dañu jóg ko ci kuréel goo xamante nii ginaaw bi ñu xamee ne booloo rek moom mooy doole ñu defoon benn marche bu am ama ama am solo euh, ci teewaayu journaliste yëpp ñoom aussi vraiment ñu leen di jaajëfal parce que seen ay émission yëpp boobu ak léegi ñu ngi ci wax jàppe ko comme citoyen boo xamante ni bépp citoyen boo xamante dafa nekk ci ay jafe-jafe ñu mën ci jàpp ba li nga xamante ni moom mooy yoon def ci liggéeyam kon nag euh, ginnaaw action yoyep bu amé day melni suñu justice tamit may nañu nopp euh, dëkk nañu nopp bo xamanteni li nga xamanteni mom lañu la ñu doon sàkku pour que yoon mëna def euh, ligéyam ci bir moomu nga xamanteni depuis le 14 avril 2019 ba légui ñoo ngi réclamé à ce que wax dëgg yalla ñu am ci lu ñu leer lolu kon li buñ ko ci amé vraiment satisfaction la dans un premier temps waye nak euh, li nga xamanteni mom lañu ci xaar moy que né yoon dem ci ba nga xamante nii wax dëgg yàlla dem ci ba jeex ba nga xamante nii tey euh, citoyen la boo xamante ni ñetti at kenn xamul fi mu nekk mu nekk occasion nag wax dëgg yàlla pour suñu justice ñu xam ne bépp citoyen sénégalais ak bépp fu muy mën a nekk luy soxal état la luy soxal justice la ba nga xamante nii tey lii saatin mën a dellu si ci suñu ay loxo. est-ce que yéen notifié nañ leen. Euh, lan moo tax arrestation bi est-ce que notifié nañ leen ko. non pas encore pour le moment notifié notifié wuñu Lolo, la ma papaam euh, xamal ma xibaar bi nga ci a ak yéen wax leen li nga xamante ni moom ci soxal section de recherche ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko dégg waxtu yu ñuy wax nii de ngi ci bi ñuy rek comme cette fois nag gendarmerie jugaat na. Mhm. jëli nañ ko ba léegi ñu ne xëy na mooy suspect bi. Mhm. jëli nañ ko denc nañ ko jant bi. Mhm. nañ ko na na parquet liggéeyam ba ñu xam lii sa ci lan la nekk ak fan la nekk. loolu la ñuy ñaan. waaw important waaw. xam naa dinañ ko def mën nañ seen liggéey. fuñ jëm feneen. Ndiaye. Hmm. Tamba. mënuma toog fii di kaso kaso yu xat yi ba pare ñuy dugal ñeneen ma ciy wax fu ñu jëm. Tamba dafa meurtre encore xam nga dem maa ngi lay wax benn waay bu ñu fekk muy nelaw waaye dina faat ko. waaw fàtte day doy waar. Mhm. ci lañ jëm. moo nekk nii waaw ñu déglu déglu. mu yéeme daal di am ci dëkk bi ñu naan Sinthiou Samba Ndaw nekk ci yoon bi jëm ci commune bu Maka Koulibantang mu nekk nag koo xam ni dañu jàpp ni xel mi neexul moo daal di rendi xatit ki nga xam ni moo nekkoon imaamu dëkk bi di Sinthiou Samba Ndaw ñi nga xam ne nag ñoo ko fekkee nee nañu. ginnaaw bi nga xam ni def na musiba le dafa jël benn fas fasu ki nga xam ni faat na ko ba noppi daal di ci war mel ni ku ne ci xare mel ni itim kiy jubilé di wane mbégteem daanaka ba mu yoree gànnaayam soosu am na ñeneen ñu mu jot a gaañ ñi nga xam ni jot na leen gaañ kenn ci gaañu bi gën a tar ñu daal di koy indi ci hôpital régional bu Tambacounda waaye moom mi nga xam ni moom moo def musiba mbaa ba boobu le daat nañ koy jël làbbali ko ba yaramam tàng moom it mu mujj ci bërëbu fajukaay district sanitaire bi nekk ci màkk kulibantan ba way takk der yi nekk foofule itam fekkee ci li nga xam ne moo waaju ci wàllu kaaraange ci bërëb ba ci jamono ji nga xam ne ñu ngi toppatoo wér gi yaram moom moom mi nga xam ni moom la ñu tuumal moo daal di faat bakkanu ki nga xam ne moo nekkoon imaamu sincu ci leneen lu ñu mën a ci ñi nga mbokk ki nga jëm si yàlla ji imaam bi xamle nañ ni niki daaw ki nga xam mooy imam bi dafa gisoon kiñ naan xel mi neexul daal di jël ay mbalit daal di koy sotti ci wetu jàkk ji mu ni ko fii nag du bërëb bu ñu war a tuur ay mbalit waa ji ni ko yow boo jàngee da ngay bëgg sonal nit ñi dinaa la def lu doy waar ñu ni nag mu toog toog at daal di dikk daal di koy fekk ci bërëb daal di koy rendi ci noonu nag mu nekk mbir mu doy waar ñu nekk nag ci jamono ji nga xam ni ki nga xam ni moom mooy jëm si yàlla ji moom daanaka wàcc na soxna te nag ñu ni ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu ne nii la façon yéene jël ñaareel loolu nag yàlla yàlla dogalu ko waaye nag mu daal di wuy ji boromam wàcc ci ginnaawam ab njaboot mu des nag ki nga xam ni moom mooy ci jamono ji ñu ngi toppatoo wér-gi-yaramam ci district sanitaire centre de santé bi nekk ci Maka Koulibantang ak ki nga xam ne gaañ nañ ko moom ñu rawale ko indi ko ci urgence bu hôpital régional bu Tambacounda mbir mi nag am ci jamono ji nga xam ni dafa yemook ñu dal di wara mëna ibbi bërebu ibbi bërëbu attekaayu defkatu njombe yi mu wara ibbi ci bës bi nga xamni mom moy tay tey ji ci alarba bi fi ci diwanu tambakunda wara dem ci diirub ñaar japp ñetti fan lu ñu mëna japp moy bi yoon nak amna na ay defkatu njombe yoo xam itam war nañ leena atté ci bu ñuy dellu nak ci li nga xamni mom moy musiba mbaa kumba bi am ci sincu sàmma ndaw na mbir mo xamni ala kulli alin taxna loxo dal di dar gemiñ nit ñi dal di gën am ci dëkkub jaaxle ndaxte li nak nek na lu doy Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Media. xam naa ne bu yàggee moom correspondant yi léegi mu mujj leen a récupérer ñoom ñëpp. fa ñu nekk am ay xew-xew rek. waaw di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax Moussa Oumar Gueye di ko gërëm bu baax. Ndiaye moom kay ñëpp la ñu. waaw ñoom ñëpp Moussa Pape Mbaye. ndeysaan Ndongo Ka eh, Ndongo. Mm. waaw jàmbaar lañ ñoom Abdou Diouf ak ñoom du Diagne ñoom ñëpp Lamine Ba. jàmbaar lañ ñoom ñëpp ñëpp ña ci bitim réew tamit. Ndiaye. Mhm. bala ñu dem ci xalaas bi ni alors présidence day jot. amon nañ fi amon nañ fi kaw ku ñuy wax Elimane Salif Wele ca Dubaay. hmm amad nañ ko fi contact waat nañ ko mais amaatugul réaction ak ku ñuy wax aussi Serigne Bassirou Niang momit ci ca bayil bàyyi Dubaay. mo moom ko baye Ndiaye. Dubaay dekk bu neex nak Dubaay du ma ko bàyyi neex. yo mos dem waaw fa doon def. dama demone visiter ji. kessé waaw def na fi une semaine. Ah. bu neex la de am ben ben ben ben dem naa Dubaay. wax dëgg yàlla Ndiaye am na benn benn Kals dem Dubaay. dem naa Dubaay. <laughs> li ma doon def ngay liggéey. Ndiaye balaa ngay dem damay laaj rek Ndiaye allo <laughs> am na benn benn benn benn agence la. xaw ma lan la bu boo xam ne il paraît ñetti tur la benn agence am ñetti tur la yor bi ñu koy wax société immobilière africaine beneen bi Kalia beneen bi Zeltex Sénégal SA. Mhm. ñoom aussi bu ñu fi amee démb ay xibaar.

mooy El Mame la Awa Diop. <laughs> E non garaawul dóor rek waxuñu rek. non dama la Ndiaye xel Lambert. Ndiaye ndaw si dafay ndaw si day liggéey ci benn boutique. waaw boutique benn femme bu muy liggéeyal mu koy fay par weer. ndaw si nak déglu ko déglu. borom kër dafa toll ci diggante liggéeyam yàqu. ma nekk ci location amee borom kër. 5 mois de location. man nag maa ngi doon liggéey ci benn boutique. bi ma amee le borom kër gi 5 mois de location borom kër gi xëy benn bis. ñëw gaa na avertir daan wax comme que nit ñëpp yemuñu bi muy avertir di wax daan naa waxanteeg moom tamit ay kàddu mu may ma moom mu ñëw ma keroog nag ba mu décidé ñëw benn dimanche indi ay nitam ne pour ñu génnee samay bagage ci biti man ma xam ne boutique ba am na xaalis te maa koy gérer maa ko yor ma jël ci lu toll ci trois ma jox borom kër ma ne mu téye mo may ma na tànk may lijjanti ku ma am fu ma dem ak sama njaboot ba ma laalee xaalis boobu nag yàlla def ki may liggéeyal soxla xaalis bi mu laaj ma xaalis bi laaj na ma xaalis bi nag waxuma ko dëgg de dama ko fen bi ma ko fenee ma ne ko xaalis bi dafa réer mu daal di dem porter plainte section de recherche bi mu porter plainte ñu woolu ma ma dem ma wuyu ñu laaj ma ma wax leen comme ni ma wax xaalis bi dafa réer ma wax leen ko ñoom it ñu bind ma beneen kéeg nee ma pour naa ñëw brigade bu foire ma ñëwee fekk fa ndaw laaj ko mu laaj ma ma wax li ma waxee chef bi daal di may jox ran femme bi nee naa ko fay xaalisam na xaalisam man maa ko sàcc ma ne ko jërëjëf ñu laaj ko ñaata at ngeen nekk di liggéey mu wax ni trois ans liggéey c'est la première fois nga jox ko xaalis mu ne leen déedéet ndax lépp man maa ko yeneen xaalisam ak ba ci salaire bu duggee chèque bi man la koy bindal man maa koy dem retiré ak lépp maa koy jox xaalisam ak lépp bi ñu waxee laaj ma manit ma wax waaye ba tey damaa ngoy xaalis bi dafa réer ci fen boobu laa téye bugguma ko wax ni sama location laa fay ndax moom it nee na doon doy xaalis boobu pour fay location këram la woon loolu la doon doy xaalis bi may wax wax xaalis bi c'était que pour ma dem joxal ko agence bu këram moo tax bi ma waxe loo ma bugguma ko wax ni man ma ko jël pour fay sama location kër ginnaaw loolu nag mu may fay ko xaalisam démb lundi lañ ma joxoon huit heures pour ma dem yóbbu jee xaalis bi sama yaay amul sama papa amul man aw ma ko toll ni aw ma nit yu ma mën a jàppale ba ma jëlee xaalis bi ba tey maa ngi lijjanti aw ma matériel bu ma mën a jaay pour man a fay xaalis boobu togg ma benn yoon buntu kër kilifa boo xalaat maa ngi koy wëndeel te man mii di wax ak yow dama toll diggante huit buntu kër kilifa bo xalaat maa ngi fay wëndeelu du ma def kat lu bon duma wax kat lu bon duma sàcc liggéey ñàkk jariñu laa xam ndogal nag yàlla moo koy teg ci jaamam te yàllaa ma ko teg maa ngi ñaan yàlla mu teggil ma ko bu ma xëyee maa ngi ko koy ñaan sonu naa nag sonu naa ba sonu fu mu yem ku ma jàppale rek laa bëgg man duma def kat lu bon duma wax kat lu bon duma wër di ñaan moo tax mënumaa wax ni sama jëkkër di liggéey na su ma ko waxee ñett yi koy dégg mën nañoo xam mu doon ay mbokkam wala dara rek moo tax mënumaa wax ci may liggéeyee ak ki may liggéeyal sutura rek laay demee boobu ba tey sutura yàlla laay demee sama biir néegu sëy li may dund yëpp sutura yàlla rek laa tii demee